kaw gaañ leen on a de petits yu ñu yegg seen kaw gaañ leen on a vu ay nit yi nga xamante ne perdre nañ seen virginité ñu yegg seen kaw mais dina am xëcco xosi dina am dinañ gis ay ay brûlure ci poñ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 nit ñi tàmbale ko xeex depuis le parti unique c'est-à-dire on a l'impression on va vers le parti unique c'est-à-dire on risque d'aller au aux au élections sans opposant on risque peut-être ci loolu la ñu bëgg a dugal moo tax nag ndaw ñi wara a yeewuwaat parce que chaque génération dans une relative opacité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 il doit être ñi ci am après ñi ci njëkk a ñi ci njëkk am jugement c' est d' sa sa ses femmes ñoo ci am yoon ñoo ci am droit ñeneen ñi ci war a wax ñeneen ñi ci war a wax mooy xëy na comme que julli la keroog yow mal am parce que xëy na de la fornication. alors maître ci yow laay dellu si bu dee dama respecté sax logique autour de table bi encore dafa am ñun ñu interpellé Malal par exemple vient de citer looloo tax ma wëlbatiku jox les PV. PV yi ndax wër na liñ ci dégg ndax yow avocat ndaw si nga xam nga xëy na ci ne secret de